Sénégal daa am ni ñu koy yoree mais Macky dafa bëgg a sukkandiku ci cuune opposition bi di wax fichier fichier nee na waa d'accord tant que fichier bi rek la wuñ ko élection du am ah CEDEAO waxu loolu de élection yi depuis deux mille dix-neuf la waroon am six mois avant kenn laal dara donc depuis deux mille dix-neuf ñu ngi violer le protocole additionnel de la CEDEAO amuñu droit changer dara ci code électoral six mois avant élection report yi ñu def ak yi ñu def yëpp amuñ ci droit calendrier électoral bi dañ ko war a respecter mais comme Macky xam na ne ay cuune la ko séqal mu ne waa d'accord dañuy def dialogue national bu ngeen ma wax rek ñu xool fichier bi après mu ngi ni président Macky Sall ñaar yi gën a solo nangu ko waaye ma dina fi parrainage parrainage bi c'est injuste nit ñi yemuñu am am parti yemuñu mën-mën moo tax parti bu ci kiif tiit da ngay dem sam jaay sa bopp jaay sa ngor yu jënd la nga ñëw dig Sénégal ay bandi ak ay criminel wala ay pétrodollar beneen ba xam nga man la bulletin unique dafa simple te cherul suñu réew mi nga xam ne amul moyen bulletin unique mu gën ci moom mu am ay bëccëg de mondial Burkina Faso Christian Marc Kaboré même Guinée gi bulletin unique lañ def Guinée gii xam ne xam ngeen ni ka fa nekk gëmul yàlla gëmul yonent bi rek lay def muy Alpha Condé xam ngeen ni seetlu te ne ko gagné moom bien que bulletin unique la moom day foqati indi ay résultats boppam mais Sénégal loolu mënu fi am Sénégal du dëkk Sékou Touré de dëkk Senghor la Sénégal dañoo civilisé dañoo am xam-xam ne dañoo jàng pays de culture la et de xam-xam donc bu ñu defee bulletin unique ñuy coché di xool kenn du juum tii du chair ndax do jël ay milliards yi bulletin di ko imprimer mais li ci jublu mooy bu bulletin yi bëree mën nañ dem wan yenn bulletin yi ne eh bii ngeen di wote def leen ko fii seen soutien gorge yi bu ngeen demee bii la dama koy dama la fekk ñu ne eh, bidon bii la bu marron bii la am am sas wi boo demee bii ngay bii ngay wote mais bu dee bu dee liste la du am mais quand même lu gën a yomb bulletin unique ak dérivé parrainage wala ko opposition bi wax loolu bu nekk fi naan fichier fichier boo xam ne amul benn problème audité woon nañu ko dee ñu ne ak quatre-vingt-dix pour cent baax na mi lu dof naan nañ ko nañ ko dindi nañ sax daal suuf fichier bi Macky Sall ne acca Macky acca rek da a dof rek dañ dem man bëgguma élection am te waxoon naa ko fi keroog wax naa ñaar ne naa Macky bëggul defet te wóoruwul ay turubam attention parce que pour mu gagné waat lu nekk dañ na ko man mii lu ne dañ naa ko ci xam ngeen ci dara yéen ànd nag moom ñu def Sénégal maak Souleymane Jules Diop Mame Boye Diao ak Aminata Touré ñun kat c'était le staff du président ñoo wër Sénégal balaa président maay wax muñ soo ko jox parole mais xam na ni moom sans moom est-ce que moom ñi mu àndal am nañ punch ak carrure pour gagner élection législative bi di ñëw président seetlu benn mbir Dakar rek député yi mu am te Amadou Ba gañe ko bu PDS àndoon ak Khalifa Sall ñooy gañe Dakar 49 pour cent leen Macky Sall gañe mais comme dañoo xaaj seen bopp ba ci jaax seen kaw raw gàddu te Dakar koo gañe gañe mbir moitié au moins député Sénégal la population Dakar mooy moitié Sénégal Macky xam ni bu demee élection législative mën na am du gañe ci kon opposition bi gañe mooy mooy tànn premier ministre mu supprimer poste premier ministre kenn jëliwul loolu lan moo tax bi mu tëb tëb rek kenn comprendre lu masu koo wax bi muy def campagne électorale yeewu rek ni premier ministre na tëb motion de censure amatul parce que premier ministre bu amee assemblée am nañ droit watee motion de censure kon bu dee majorité ba nekk assemblée ànd ñoo président ku mu tabb ñu daan ko ku mu tabb ñu daaneel ko kon il est obligé il sera obligé tànn ci opposition bi pour duñ duñ daaneel ki ñu tànnal seen bopp opposition mënul fal premier ministre ba di daaneel mais président bu dëgëree bopp fal premier ministre boo xam ne ci moom la bopp te amul majorité assemblée chaque fois dañuy def motion de censure premier ministre dafa am une semaine ñu daaneel ko doo taxoon mu am France cohabitation bañ cohabitation moo tax ñu supprimer poste premier ministre mais ñu bëri xamuñ ci dara lu ne am na lu tax lu tax dina ko kenn xamu ci dara man xam naa loolu la moom waxuma ko de man naa ko xam ndax gis naa li mu dag ni mu sonne pour gagner dafa gagner ah dafa gagner bu baax Macky Sall mais est-ce que gars yi mën nañ gagner pourquoi mu jëlee Idrissa Seck xëy na moom la yaakaar mu gagner la doo xam de loolu aussi lu jar a analyser la xëy na bu ñu boolee seen force xëy na Idrissa dama la gagner ñu ànd gagner peut-être je n'en sais rien yàlla rek xam. Mais, je termine par là. dialogue national fichier électoral yëpp ay naxee mbaay la yëpp naxee mbaay la nañ arrêté fichier bi nañ arrêté dialogue bi dañuy tardel nañ dem élection ku mën sa morom duma yi ay caaxaan la mooy fichier fichier banque bi yëpp gis nañ ko tur yeeg carte d'identité yëpp a ji carte d'identité CEDEAO ñëpp am nañ ko mais yéen a kuy le problème na nañu arrêté dialogue bi amul sens yàlla dem na sax yàlla ko yàlla yërëm Mamadou Niame yoroon dialogue politique bi yàlla jël na ko yàlla ko yàlla a àjjana dégg naa sax ci wax xawma dëgg la am déet ñu ne Famara Ibrahima moom pare na génn na ci affaire yi xawma dëgg mais li wóor ma dialogue bi moom dafa feebar xaw ma dafa corona xaw ma mais <laughs> mais li wóor mooy dafa ñuy tardeel dañ dem ci élection yu bari waaye waaye ma ne ma ne nañ na nañ ngeen mu bëree bëri dafa jot ba ne grand combat bi la ñuy nekk na gars yi jàkkaarloo nañ ko wax ci dee jàkkaarloo dafa jot ci bu amul nag ñun dinañ dem ci CEDEAO wax ko ne ko gis Sénégal respecté wuñ